dali nag jàmm mbokki internet di nuyu suivre ci xibaar ginnaaw bi leen nuyoo lu ñeel nag mbirum Baye Mbaye MC Niass ak ki nga xamante ne bii mooy président ma Sall. Yaatal Vision digganteem ak Ousmane Sonko moom mii di Baye Mbaye MC Niass nag simbaaru ci kaw ki nga xamante ne mooy président Macky Sall neen na kii di Macky Sall bis bu. Euh, euh, gàntalee li nga xam ne mooy candidature pour kii di mag Ousmane Sonko boobaa nag dina gis leneen ndaxte Ousmane Sonko defut waxut lu tax nag ñu war a mën a gàntal li nga xamante ne bii mooy ab candidature am élection présidentielle 2024. te nee na bis bu ñu demee ba ci jamono jooju te ki nga xamante ne bii Ousmane Sonko nag bokkut neen nag moom dina xam ne nag kii di Macky Sall nag leen koy bàkkee lépp dëgg la nee na koo xamante am xelam matut mooy ki nga xamante mooy Sall moom daal euh, lu ci mënti xew moo di mi ngi araftu Macky Sall ci candidature ki nga xamante ne bii mooy Ousmane Sonko njiital Pastef ci euh, élection yi nga xamante ne bii moom la ñu dëgmal ci atum deux mille vingt quatre ngir bokkam moom moomee di Ousmane Sonko euh, ci élection yi ak gàntalam goo xamante ne bii ñu ngi koy laam-laamee ci nit ñi.